leen jàmm fidèle internetu bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen a jaajëfal te fu seene ñëwaat ak yéen ci seen xibaaru Actu Net comme ni ñuy faral di ci ànd ak saa su nekk ba tax na nag tey jii di gën a fës ca xët yu njëkk ya bokk na ci drame bi xew ca diwaanu Dalifort foofee nag. benn maçon rek moom fa daal di ñàkk bakkanam ginnaaw ba cinquième étage bi. daal di daanoo ci kawam mu nekk effondrement boo xamante ni métti na lool waaye moom donc moom moo ca daal di ñàkk euh, bakkanam waaja nag mi ngi tolloon ci vingt-neuf ans ginnaaw ba euh, mbiri di am sapeur pompier gaawantu nañu teew sur les a euh, jëm ko réanimé ba sonn ba noonu la daal di mujjee rek ñàkkee bakkanam waaye du ñu gulet gis nañ ne ba nawet bi dikkee ba tey nag bari na doomu aadama yu génn àdduna ci effondrement soit ca kër ga ñuy nekk nag moom mooy nekk kër boo xamante ni yàgg na wala immeuble ya ñu nekk moo nekk immeuble yi nga xamante ni jamono ji waroon naa fekk ñu uh, toj ko defaraat ko ba noppi bu jëlee exemple ci uh, sëriñu daara bi nekkoon ca diwaanu Medina moom nag musiba bi fekk ko fa waaye ay taalibeem ñoom ñoo ca daal di ñàkk seen ba kanam na sax ak soxna uh, su ca gënoon a fës ñu ko doon fësal ci TikTok beeg réseaux sociaux yooyu ak fépp doon mastawu ay mbokkam ñu ni déetawaay nag ca diwaanu kaas ba marché gël Tapée foofe tamit benn immeuble daal di fay effondré wu du toll ci ay doomu aadama yu takko takku ñàkk ca seen bakkan ci anam yoo xamante ni doy na waar lool ba tax na daal jot na ñu daal di accélérer la cadence ci lépp loo xamante ni immeuble bu yàgg la immeuble boo xamante ni mënatul tenir ndax nawet bi ndox li mu daal di wàcc ci kaw suuf eh, dafa bari te loolee nag dafay contribuer ci effondrement yu baree bari yi ñuy faral di gis nañ leen ñaanal yàlla fa ñu jëm ak gënal leen uh, fi ñu jógee di mastawu seeni mbokk bu baax a baax baax actualité politique lañ fa seeni yaatalee xibaar yi ak kii nii di uh, Mimi Touré Mimi Touré nag gis nañ ne bés ba ñuy fal uh, président assemblée nationale ba suñu joon yàlla tey jii digganteem ak suñu jotum do président Macky Sall neexatul la ko waral daal ne nañu kii nii di Mimi Touré dafa am mbetteel Euh, ci affaire euh, présidence bi ba tax na ci saa si daal la daal di euh, gedd vote bi amoon ca diwaanu ensemble ba jël saagam rek daal di génn Farba Ngom sax moo ko daal di continuer la vote ba te Mimi Touré ba mu demee ba yegg këram rek dafa daal di supprimer bépp image boo xamante ni moo ko doon liggéey ak waa Benno Bokk Yaakaar. Euh, ci compte euh, Facebook am ak yeneen compte yi nga xamante ni fa la leen doon faral di leen jàppale euh, politiquement lu ci mel ni ci Twitter bi ak yeneen ak yeneen boobaak léegi nag waxul woon waaye gisoon nañ ni déception am na ci côté Mimi Touré ndax bu njëkk ba laata ñuy xam kan mooy président assemblée ak kan mooy nekk premier ministre bu ñu waxee rek dañ naan Amadou bala te te président am assemblée. Euh, mën nañ koo jox euh, ko ci mel ni Mimi Touré ndax euh, gis nañu xeex bu metti bi mu doon xeex ak opposition yi ci élection législative yi nii ñu bàyyee yaakaar nag daal di nay tas ci côté am waaye Mimi Touré ci la daal di doxe daal jël décision une bonne fois pour tout daal di nay toog ba xaar suñu njiitum réew fal gouvernement bu bees ba noppi rek mu daal di woo presse bi. janoog ñoom waxtaanee li nga xamante ni moom moo ko jotale ak suñu njiitum réew mu ngi ko tàmbalee. Euh, ci bañ koy euh, nommé rek président euh, présidente Thiès nee na boobu accord la woon digganteem ak suñu njiitum réew bu defee lii mu daal di koy nommé présidente Thiès effectivement noonu la def ba daal di toog ci poste boobee présidence assemblée nag la même chose da ko ci wax rek boo ko boo ma jàppalee ba Benno Bokk Yaakaar daal di nekk majoritaire ca diwaanu assemblée jàppal ni daal yoo lay teg ca ca pandaw ga Mimi Touré nag amoon ci yaakaar lool ndax lépp lu mës a seek ak suñ njutum réew rek ab accord la mais cette fois ci daal nee na kàddu googee nekk na loo xamante ni tënk nañ ko ba pare respecté wuñ ko nee na dafa toog ba 9h26 ca bés bi ñu war a dem fale président assemblée rek suñu njutum réew daal di koy woo téléphone ni ko changé na avis Amadou Mame Diop mu laa la fas yéene def candidat ngir mu daal di may représenté ci assemblée ba Mimi Touré nag nee na mu am ci mbetteel lool waaye tamit xam ni suñ njiitum réew rek dafa jugoon ngir daal di koy trahir mu boole pat ak organiser ba tey du dundee yaakaar moo waral sax mu daal di teg tànkam ca assemblée ba waaye ba mu xoolee ba xool gis na ni daal suñ njiitum réew président Macky Sall du ko bëgg a jàppee xale ci politique te du ko nangu bañ ca weesoo tamit daal na koy woo di ko proposer beneen poste mais Mimi Touré moom moo lànk ba daal di tëdd ca naaj ba donc ñoom ñaar lépp loo xamante ni mës nañ koo wax mës nañ koo def wala politique la kenn jàppalewul sa moroom te yàlla tax mais plutôt danga may defal lii ma daal di lay euh, defal lële euh, soo officiel diggante euh, président Macky Sall ak Mimi Touré nag moom ko ci nekk daal di ngay jël sa yoonu bopp ndax traison bi nga xamante ni dund na ko ci wàllum présidence bu assemblée bi. Barthélémy Diaz semaine bi nag gis nañ ni bokk na ci la une de tous les journaux wala sax réseaux sociaux yeeg site internet yi moom la waxtaan waxtaanee ginnaaw ba mu demee ah, ci télé Futur Média ci émission bañ koo invité woon rek di sànni ay track ah, ñu nekk ci groupe Futur Média ndax jàpp na ni ñoom daal ah, gouvernement bi lañ fi daal di toogal parti au pouvoir lañ fi daal di toogal amul lenn loo xamante ni dafa intéressé askan bi wala opposition bi ñoom ñu ciy wala ñu dem na sax. Ah, ba di leen xas ci seen méthode de euh, travail bi mu nekk mbir ba nga xamante ni nag Babacar Sall euh, journaliste boobee mënu ko woon a dékku ba tax na daal ci euh, saa si rek la ko daal di. tontu ba muy animé ci rajo ba mu ngi koy yëgal rek ni Barthélemy Diaz fuuy nga réew nga ak yeneen i kàddu yoo xamante ni sax jarul ñu ciy jaaraat en tout cas daal lépp lu mu waxoon waa groupe Futurs média moom Babacar Fall moomee daal dina koy euh, répliquer ñenn ñi nag moom daal nañuy ñuy féliciter Babacar waaye ñeneen ñi jàpp nañ ni euh, li mu def bokkul ci professionnalisme ndax journaliste euh, waroo tàmm di a tontonte warul bokkul ci sa éthique ak déontologie kiy wax danga koy bàyyi muy wax yow ngay liggéey sa liggéey waaye waroo yor antenne bi di yëkkati ay kàddu yu tegginewul di ko wax ba auditeurs yi di ko dégg ñenn ñi nag foofu rek la ñu duutee baaraamu tuuma Ababacar Fall waaye ñeneen ñi nag moom rafetlu nañu li mu wax ndax jàpp nañ ni Barthélemy Diaz li muy faral di attaquer nit ñi dafa bari il faut que nit jokk daal di koy sa place loolu nag moom moo nekk position wu Père Zora Père nekk ab acteur bu kenn dootul gam-gamle la ci réew mi ñu tuddee woon ko Père ci série bu wiiri wiiri moom nag tey ji jàpp na ni yomb na loolu ngay dem kër nit di ko xas te Barthélemy Diaz loolu la doon def dafa dem ba biir TFM xas ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk TFM donc nag lépp luñ ko wax rek daa dina koy euh, mérito Père Zora daa dinay jël position que nit day yaru nit day xam waxin nit tamit day xam lu mu war a wax ak fan la ko war a waxee du mais doo jàkkaarloo ak ay nit di leen xas mi ngi mel na nga dugg kër jàmbur rek daal di xas père de famille ba c'est la même chose ak li nga xamante ni moom la Barthélemy Diaz daal di def. leneen li nga xamante ni fës na loola semaine bi ñu ko doon gis mooy que ni Californie am benn jeune fii bu toll ci 19 ans di wuyoo ci turu Adja Thiaré Thiam da ko daal di rek porter plainte pour euh, viol tentative de viol. nee na Californie da ko invité woon këram ngir rek ñu daal di toog waxtaan ndax fii nii amul benn jeune fille boo xamante ni rek boo amee copain doo dem seeti ko wala nga xamante nit dem seeti ko naka noonee rekk ci la Californie commencé. Ah, di jeté wu ci ah, kawam daal di ko jéem a sàkku ba tax na mu koy jox ay coups comme si dafa tiim moroomu góoram ah, tey jii bu di benn nit bu ko daal di sauvé kon tey kenn waxatu ko Euh, Kaliphone doon na ko violé ba noppi daal di yàq àdduna moom nag nee na mbir mi lu mu métti métti donte kanamam geek àddunaam xolam lépp yàqu na waaye nag dina ko dénoncé ci kanamu journaliste yi dénoncé ko ci kanamu takk der yi ngir mën a protéger beneen xale bu jigéen buy jóg rek ngir approché wu ak Kaliphone euh, justice daal dina ci dugal loxoom premiers éléments de l'enquête yi nag. ñoo ngay euh, firndeel ne rek euh, kii nii kal di moom moo daal di nekk ca euh, safaan ba ndax d'ailleurs bañ ko interroger li mu wax dafa bari ay contradiction yoo xamante ni daal benn bokk ci ak moroomam soxna si moom moo ko dominé tekki tamit kër docteur la ñu daal di fësal mi ngi firndeel ni tentative de viole boobee am na waaye tamit nag trace de violence dafa mel ni daal loxol Kaliphone daal di wu ci jokk kë gën xam xambu taal ba nag moom moo di beneen xale bu jigéen bu dund la même chose que Adja Thiaré Thiam moom nag ma ngay firndeel ni li soxna soo see dund moom tamit naroon na koo dund ak Californie Californie daf ko doon defal ay attouchement ay attouchement ba ni mu naroon a yeggee ci kaw ba mu ko daal di daw bu du woon ki wax tey ji doon woo am fit wax ci benn yoon waaye nag kii daal dina ko yokk fit ba mu mën a taxaw rek fëgg dënam wax li nekk ci xolam dafa mel ni Californie daal jamono ji mi ngi ci ak guddi gu bës setagul ñu daaneelee ko xew ca diwaanu Liberté 5 démb ci guddi nag nee na ñu benn waay moom moo daal di fàtt bakkanu soxnaam li ko waral daal dañ doon xuloo ask xuloo bu sew rek naka noonu la waaja daal di fàtt soxna si bam ca noppee daal di woo ñaari meilleur amim rek ngir ñu daal di koy jàppale mu expliquer leen li xew lépp ñoom tamit ñu daal di décider rek que ne dañuy daal di la l'affaire maanaam daal jéem a def comme si que. par accident la daal di ñàkkee bakkanam ñu woo ay woy juram ni leen rek seen doom dafa glissé ci escalier yi daanu daal di génn àdduna ñoom tamit bañ dikkee euh, dute wuñ ci dara dañoo woo sapeur pompier ak police ñu teew sur les waaye li ñu joto gisagum dafa mel ni ab bu ñu daal di masqué la en attendant rek euh, ñu daal di ubbi enquête bi lépp lu mu joxe dañ ci dellu siwaat mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah.